alors moom moo def seen caali seen caali ndeysaan mais nag mënuma wax lépp parce que dafa maanaam ay page page la. waaw benn page rek da nga wax ci seen caali rek benn page rek bësal ci rek. benn page. waaw waaw li lay nasaraan di wax maanaam page de garde. Ah, boo xam ne même boo liirul téere bi di nga xam. la ca biir ci biir mais moo ko doon liir fii moom. <laughs> Ah. damay ragal ni. Euh, euh, huit ci la fekk dana naan kii paa bi paa daal léegi moom moom tàggoo na ak sagoom tàggoo na ak sagoom <laughs> moo tax mooy naa def benn benn benn page rek ace ah, bismillah bon ma ne ko donc moom mi ngi tudd Ndeye Khary Sène Ndeye Khady Sène Ndeye Khary ah. ko yàlla lafal cat amiin ah, yàlla may ko njaboot gu jub te barke yàlla fay ko liggéeyam amiin ma ne ko Sène Thialy seen caali demba seen masalla ñaar yàlla ma booleeg moom yaru na taaru na yaatu na tabe na yàlla ma booleeg moom bu xool seddee kàddu jib sagu jeex rongoñ tuuru seen caali yaay sama karaw bakkan loolu eh laal samay gët jooy <laughs> yaa baax seen sa xol rafet ni nan bu weex bu ñu teg ci jàllu këriñ waaw buuru këram ñu la neex ngay doxee e waay <laughs> boo tukkee ma weet boo ma meree ma jaaxle boo jooyee ma jooy boo ma bàyyee ma dof fori sagar <laughs> awa buuru këram nu la neex ngay doxee yor sa caabi yor sa caabi de hmm? moom sa xol moom sa xolub jëkkër uh-huh. seen yaa gore fàttewoo sa démb xeeboo sa tey yaakamtiwoo sa ëllëg jàmbatoowam ba ma jaaxle jooytuwoowam ba ma dof uh-huh. dalaxle ngaa seen ay waay fii lu fi keneen di wut ba ab sëram di fi tase ba ay sëram di fi dagge Ah, macha allah yow Coumba ah seen caadi moom macha allah am na fu mu téye foofu la kon suñu mbokki internet yi. Ah, dégg dégg seen ah, caadi dañ ko ñaanal mbokk seen caadi yàlla boole yàgg yàgg yàgg yàgg la ñuy wax. Hmm. yaakaar naa Mamadou Mbaye le poète ak Meysa euh, Mati Ndiaye fa euh, loolu lu am solo la. Euh, suñu le yi qui yi bu ngeen bëggee bokk ci waxtaan wi 76 259 59 00 76 2